chargé des relations avec les institutions, chers collaborateurs de Monsieur le ministre, chers collègues, je vous salue. Souleyman. Euh, monsieur le ministre, euh, d'abord damay rafetlu ce projet de loi bi nga xam soumettre Assemblée nationale pour nous, war ko adopter euh, may wax avec euh, monsieur le ministre nous avons voter ce projet de loi en tenant compte bien sûr de l'amendement qui a été proposé par euh, le président Seydou Diouf monsieur le ministre kàddu Doubari, du bari voté projet de loi d'abord je suis du département de Mbour comme vous le savez département de Mbour dafa amoon de député le projet de loi bi dana réparer injustice bobu nga xamné département de Mbour ak département de Thiès ci biiroon nañ ko té liko ko monsieur le ministre du woon dara dudul des raisons purement politiques loolu motax Dana voter voté projet de loi bi leneen li nga xamné motax dana voter voté projet de loi bi moy ku nek xamna né ne Massar est une nouvelle circonscription si vous voulez waxee l'équité aussi fait partie aujourd'hui de ces 46 départements du Sénégal ne serait-ce que pour cette raison que je monsieur le ministre projet de loi une concertation bi nga les acteurs Nous parce que les acteurs ne waxtaan am na durant un mois ñeenti semaine nga sekk ko ak ñi nga xam ne ñooy pôle majorité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy pôle non aligné ak pôle bi nga xam ne danaa fa daaneel muy opposition ngeen waxtaan waxtaan yu xóot mu am ay consensus ñu ñëw indi projet bi en commission technique ñu voté ko y avait une seule voix contre ñëpp adopté

dañu waxoon ak yow ne la am nañu consensus lenn rek la ñu xaw a moytu ragal ko mooy les incidences financières te loolu le l' proposé par le président Seydou Diouf rek na ko kon lan mooy problème bi man gisatuma problème ci projet de loi bi kon chers collègues dama leen di invité ñun ñëpp ñu ànd voter ce projet de loi mais monsieur le ministre nous avons une opposition qui est nihiliste mais une opposition malhonnête malhonnête parce que ragal nañoo janoog askan bi wax leen li nga xam ne moo jóge ci waxtaan bi ak ñoom ban mooy seen lan mooy seen position et c'est ça la vérité il faut être honnête loolu mooy dëgg ñun nag comme ñun jël nañ suñu ay responsabilité ba teg amendement war a matale euh, loi bi jàpp naa ne coow jarab ci dara li ñuy xaar li ñuy xaar mooy parce que gis nañ ci ay collègues yu accusé ay nit jàpp na ñoom ñoo yor dëgg c'est encore une fois il faut que ngeen arrêté bi wax lu dul dëgg il faut que ngeen arrêté di manipuler les gens. il faut que ngeen arrêté li ngeen di def ci biir hémicycle bi parce que dàqoo ko ñun ñi vous faites de la politique politicienne Si vous voulez ay voix élection législative c'est pour euh, juillet 2022 Vous dem seen askan action, vous ci bari dañ leen a localité Vous ñi ñëpp candidat nga woon sa maam Jaara yéen ñi ñëpp dañ leen a gañe yéen donc arrêtez arrêtez votre cirque liggéey moo ñu fi indi liggéey moo ñu fi indi wa baye bo ma tudd ko mu jël réponse am dama né il faut arrêter monsieur le ministre on va voter ce projet de loi inshallah, allahu rabbi ne serait-ce que li ma ci évoqué pour le cas de Mbour pour le cas de ker Massar et la concertation bi nga xamné mo jitu avant nga indi projet de loi di fi monsieur le ministre da nga wax lu am solo keroog ma japp ko da nga né Serigne Touba ci jangalem néna dëkk bi jaamu yàlla. je vous remercie je vous remercie la parole est à notre collègue Abdoulaye Baldé notre collègue